dafa am bés yonent bi di xalaat mbiru Yuusuf xam nga yonent yàlla Yuusuf mbiram lu yéeme la yonent bi di ko yéem ci juddu juddoom euh, yonent bi ku amul morom la te xalaatam dafa gën kawe xalaatu nit ñi ba noppi wàccaat pour jëriñ leen muy tagg benn yonent bu ñuy wax Yuusuf di ko tagg ba mel ni tagg bi dafa ëpp te fekk na ëppul wante dafay wane ni yàlla lu ko neex mu maye ndax Yuusuf moo gënoon xaleele magam yépp bañ ko fexeel nañu ko dugal ko ci teen sàmm génne na ko jaay ko dem na ca dëkk ba am fa nattu ñu tëj ko kaso kaso ba def na fa fukki at ci xere ñu yàlla bu demul woon kaso kenn du ko xam ci alamul asbaab la nekk yàlla lu mu bëgg daf koy wutal sabab euh, ba mu ci jógee am na lu mu ñaan boroomam mooy li mu gis buuru réew ma di ko yàq mu may ko kàttanu mu yéwénal ko te bañ ko may nguur ndax bu ko mayee nguur rekk gàllankoor ko bu ko mayee nguur gàllankoor ko ba ci la ko yàlla maye kàttanu la yàqu woon ci réew ma ci wàllu alal yépp mu defar ko yooyu yëpp su ko boolee nga xam ni mën nañu ni mooy buur bi léegi ndax dañu wax ni di buur di damel di nit a ko gën parce que nit a ëpp doole buur moo ëpp bu euh, doole damel ndax moo leen ëpp xel te ki ëpp xel moo la man su ko defee yonent bi ni ndax mas ngeen gis ndono bu toll ni bu Yuusuf di ko yéem ndono la bu nga xam ni euh, ki ko amee bàyyam lépp la baayu baayam lépp la maam ja ca tegu lépp la yàlla booleel ko ci yi mu ko ci booleel nit ñaa ngi yéem benn tubaab bu wax ci yonent bi presque lo xam imam Busiri rek moo ma sa wax ci mom te ming ko jele ci enquête yu mu don def ba bind ci téré bu ñuy wax voyage en Turquie muy tegtaloo waxu yonent bi ci yuusuf ba delloo mbàttu bi ci ndaali te mooy wax ci yonent bi lu toll na li mu wax ci yuusuf te tubaab la te yonent bi li mu wax yépp moo nekk ci yuusuf yuusuf doomu kan la doomu jacob la doomu yàqub mais jëkk mu nekk doomu yàqub ñu di ko tudd fekk na buur la woon roi la woon parce que ku yar buur buur nga gestionnaire la woon parce que alal ji yàqu woon yëpp defar na ko yonent la itam parce que yàlla wax yu na ko ñetti cër Il était roi, il était gestionnaire, le plus grand d'ailleurs, et il était prophète. Fils de Jacob. Jacob est philosophe et prophète. Fils d'Isaac. Isaac, père d'Israël. Petit-fils d'Abraham. Patriarche des patriarches. Père du monothéisme céleste. un petit ni trop pour un homme seul waxul pour un seul homme parce que devait venir au partage Qui euh, xamee noonu sa nawle di ko waxe mën nga yar sa njaboot yàlla xam na ko loolu moo tax euh, Lamartine mënatul woon téye boppam fokk mooy mu delloo mbàttu bi ci ndaale tagg yonent bi tagg ko tagg na ko lu nekk